tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum adduna Wally Ballago Seck ñu ngi masu képp ku am sa mbokk bu faatu ci li nga xamante ni moo xew Mbour maa ngi masu waa Sénégal yëpp particulièrement waa Mbour euh, di ñaan yàlla lii bañ fi amati vraiment du ma koy yéegee sama xol bi metti na li ma yëg nag lu bare naa ngi nekk ci studio yi liggéey ba yenn heure ko très waaye nag ah du wees ñu masawu leen ñaanal leen yàlla xare leen àjjana te yéexee ñu te lu mel ni bañ a amati vraiment ñu ngi leen jàmm. ñoom ah, waa Mbour yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm faju faju nu mu gën a gaawee ndax lii bu dalee ci ci nit moom sa xol day métti loolu loolu loolu j'ai le cœur lourd ci may wax ak yéen ñi vraiment euh, massa leen coono massa leen di massa ñëpp wasalaam daani sama waay la jàmm ñal jaara busut wala man sa bi jaara